people. il faut ñu waxtaan en tant que nit nan la ñu mën a def ba jariñ suñu réew mi nan la ñu mën a taale suñu xel yi pour nekk ay c'est ça la non c'est non Cheikh xam naa di nga àllu di nga àllu Cheikh nag da ngay déglu nag Cheikh Cheikh yaa ngi ndaanaan nag day daanu man ma damaa gëm naa lool quoi ah, d'accord ndaanaan nga nag mais yii li nga développé yu daanu nga daanu nga ah, jël yu métti ndax xam nga lu tax hmm. bu fekkee dane eh, d'après ba tey xam nga nag nit tey ji bu dul woon bu dul lii nii quoi ñu koy waxante nii ñu koy seetaan. mun naa ci bañ a àddu. Mhm. ndax dama koy bàyyi ak ay propos am lay doon. Mhm. mais su ma toogee nga toog moom mu toog moom mu wax. nga noppi mu wax lam ci leer ma noppi. Mhm. dafay mel ni dama dama dama bokk ak moom gis-gis. mais yoon sax. waaw te foofu moom bokkuma fa ak yow. non non je suis là pour ça. voilà waaw je suis là pour ça. sànq <laughs> boo boo fi ne. lii. Hmm. lu ñu war a condamné la. affaire góor jigéen waaw lu ñu war a. Ah, non non kii absolument même parole yi. lu ñu hmm. war a condamné la. Hmm. muy seex dëgg la ñun ay jullit lañ. kenn mënul taxaw ne alxuraan jii ñuy jàng amaana apporte lu ñu dara non loolu moom non non <laughs> mais yow alxuraan jii ñi ko jàng ñooy communiquer ak suñu borom. ñi ko jàng ñooy def safaan sa non mais loolu loolu loolu. loolu programme yàlla la. xaaral non defal ndànk loolu programme suñu borom la. Tange mm-hmm. loolu programme suñu borom la. Mm-hmm. suñu borom mm-hmm. bu ko neexoon. yii am ni yëpp du am. bu ko neexoon yii am ni yëpp du am. Iblis bi nga xamante ne nii tey jii moo taxaw doon la benn benn opposant ci ci ci ci ci ci ndigalu suñu borom bi. kooku bul fàtte ni eh, dafa dafa am doole. suñu borom dooleel la ba pare seetaan ko nag. moo tax dafa am yenn idée yoo xamante ne nii moom moo koy dugal ci sa bopp yow bu ko dugal ci bopp keneen ak keneen cest à alxuraan ak yii du lu ñuy waxtaanee pour ay affaire de psychologique wala yooyu déedéet ñun waruñoo nekk foofu c'est-à-dire loo xamante ne lu ñu war a gëm la di ko dund la lu ñu war a gëm la di ko dund xam nga tey jii su fekkee ni que da nga ne buñ ne lii rek nga ne non ñoom ñi tamit ñooy lii loolu fépp la secteur boo dem ñii dañuy def lii ñii def ñii def safaan mais dama ni la alxuraan moom fii ñu toll réew mi tey jii euh, yow mag nga su fekkul woon tey jii nga jàng alxuraan ba nii fekk fekk jàng ko woon nga bëgg ko jàng mhm. ñu teg fee benn xale bu ndaw mu koy jàngal moo lay njëkk a mokkal. absolument. Mhm. xam nga lu tax. xel ba dalaa gën a jege suñu borom. Mhm. dalaa gën a jege yàlla. waaw parce que yow sëñ bi ni mu ko waxee mooy yow. ki nga gis xale bu ndaw bi nga gis danga nga jàpp ni moo la gën ndax li nga mooy yàlla moom mooy ko yàlla. moo tax ñu ne ko moomin. voilà léegi nag loolu. loolu loolu loolu loolu loolu mooy li nga xamante ne ni mooy mooy mooy mooy mbiru mbiru mbiru mbiru baatinu suñu borom. dafa am loo xamante ne baatinu suñu borom la nekkul ni da ngay jàng ba doon kàng fóori rek après nga xam nga xam dëgg-dëgg lan mooy alxuraan wala nga xam ni nga war a ni nga war a dundee wala nga fees dell déedéet gis nga alxuraan moom bu fekkee da nga koo jàng dëgg te li war a nekk ci yow dëgg-dëgg poids bi war a nekk ci yow dëgg pour nga attan ko nekkul ci yow yaa mbaam mi ñu ko sëf mu yóbbu ko yéen a bokk yem. poids ba dong la ciy xam. ba pare gis nga lii ñii àdduna fi mu toll nii philosophie yi dañoo dañoo réussir lu bari li ñu réussir surtout ci côté boobu nag la ñu réussir parce que da toog lépp benn philosophe mu gën a dégg alxuraan wax la ci loo mu mais après lu muy indi pour pour bëgg a critiquer xel hmm. kon xel jotewul foofu waaw kon fool jotawul foofu kon sama sama waajum Cheikh xam naa foofu da ngaa kii rek mais bokk li ñu wax non waaw waaw xaaral rek non lii moom lii moom balaame ko ko ñu xam ni balaame ko ñu jàll ci leneen mais <laughs> li li Cheikh di moom waaw ngi def campagne <laughs> xam naa day campagne lee moom day bañ nekk fële ñu posé ko ci question ma ma <laughs> wax nga dëgg mais lee moom ah. lee moom naka condamné moom d'accord parce que non ah, non am yoo xamante ne bu amee bu boo amee lay bi sax bul ko wax yow non dëgg la dafa am yoo xamante ne su amee même lay bi soo xamoon bul ko wax ah, parce c'est pas de notre ba pare ñoon ñoo xam la bul dàq suba tamit wala yii ñu dagg sa kii bii di dugal ko de mais gis ngeen waa ji nangam dama jàng benn mbir mu servir ma alxuraan du français. ci hmm. Serigne Saliou moom ma ko jàngal. ma doon xale bu ndaw. mu ne ma foo mën a toog million yi nit nekk ci li safaanook dëgg. Hmm. benn nit. nekk ci dëgg. Mhm. toppal benn nit bi ci dëgg. te boobu ba tey manqué sax te gis naa ci njëriñ. absolument parce que dëgg moom mooy may aisance ma wax li ma bëgg a wax te du ma rus fu ma neex lay jaar. loolu aussi li ma jàng la. te du alxuraan du ba ci ba ci ba muy wax. faj mi muy wax noonu. mais lu mu wax si wér que xam nga <laughs> kaay man sama doom barki démb jaay 200 millions yi jàkk buy ubbi benn yoon. waaw ah, sama doom temps sama doom barki démb Ndiaye. Ah. looloo moo yóbbu woon ma demoon doon ko seet dafa wéradi woon ah. mais hôpital laa njëkkee ba sonn mënuma. waaw jànkaru alxuraan a ko faj. mais du ñëpp de. waaw waaw mais du ñëpp bu wax bu gis naa ko fa. waaw xanaa xaw ma ñaata million lañ ko tabaxee. dama ni la bu ndaw. boo xamante ni benn wala ñaar yoon lay ubbeeku. ñu tabax fa benn centre marché sénégalais liggéey fa. Tange Tange Tange. alxuraan lépp ci biir Serigne Saliou ku ko gën a peser biir senegal Ah, kenn man de. ah waa kan kan moo gën a posé biir Sénégal waa léegi liggéeyam boobu yëpp ci lan la ko jëmale woon. ci yàlla ak alxuraan. li mu réussir ku ko réussir. ah man de bosam laa gis. waaw waaw mu ngi noonu te te fan la ko jëlee. jàngale alxuraan tey jii lépp lu mu am. Uh-huh. li ci ëpp looloo ko may. dëgg la ay junniy junniy junni tey jii ñooñu mu yar. Uh-huh. yar leen jàngal leen def ci ñoom li ñu war a def tey jii doo ci gis kenn ne accam. mu du ci ñàkk nag. du ci ñàkk mais après daf ci am loo xamante ne nii tamit nag. après euh, li li li li li ñuy wax naan après dafay am foo xam boo fa tollee nag lépp leer na ci say bët yow. d'accord yow yaa xool nag yoon bi nga bëgg a jël nga jël ko. absolument waaw. d'accord yéen ñëpp waa Touba ngeen ñi ñëw ci cas Cheikh Omar Diagne. Happy People TV.